dal leen ak jàmm ci Sen Sport 221 derby bi ñu bari doon xaar tey jii foofu la ci Angleterre doxoon diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Manchester United mu nekkoon match bi nga xamante ni a changé li nga nekk ci troisième place place bi war na joué tey jii ci ngoon bu fekkente ne gagné seen diggante ak Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté kon ñii di Liverpool dinañ wàcc podium bi dem ci troisième wala quatrième place bi kon Liverpool jamono yi wàcc na loolu gannaaw bi nga xamee ne moo nekkoon ci bopp classement bi Manchester United moo ko uutu jamono jiital li nga xamante ne mooy tableau championnat boobule am lu toll ci 37 points. Mame Birame Diouf marqué na cinquième biom de la saison foofu la ca Super League bu Turquie ak club bi di Hatay Sport gannaaw bi nga xamee ne kat ni ki ren ji la fa dem Hatay Sport nekk club bi nga xamante ren ji la ñu ci première division bi waaye nag ñu ngi wéy di wane seen bopp gannaaw bi nga xamee ne xeex nañu ba toog ci li nga mooy cinquième place bi ci championnat bi Mame Birame Diouf nag marqué na lu toll ci 5 bi ak 5 passes décisives ci 17 matchs Ibrahima Diallo joué na troisième titularisation bi nga xamante ne mooy Southampton ci match bi doxoon seen diggante ak Leicester City moom jeune militaire bi yàggul nag bu mu demee foofu la ca Southampton ci mois d' octobre bii ñu weesu la dem waaye xeex na ba bokk ci équipe bi jamono yi bokkoon na ci joueurs yi nga xamante ne ràññee leen loolu ci jogante googule waaye nag jamono yi ñu bëri ñu ngi wax ne bokk na ci one of the most talented player in his na ci ñi gën a xereñ ci ñi nga xamante ñoo nekk frère ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diallo Ligue 1 sénégalaise gannaaw bi nga xamee ne complété nañ troisième journée bi dina leen jox résultat wu match yi nga xamante ne amoon na ci weekend bi ak tableau championnat bi jàmbaar ak jaraaf dañoo match nul un bi partout douane ak mbuur mbuur petite côte dafa fekk ñi di douane dóor ko 2-0 Dakar Sacré Cœur dafa dalal génération foot dóor ko 1-0 Tëngéej FC dafa dalal NGB dóor ko 2 buts à 1 US Gorée ak Casa Sport tey jii dañoo match nul un bi partout Njàmbur bu Louga ak Sénéps ñoom itam dañoo match nul 1 bi partout Stade de Mbour nag dafa dalal AS Pikine dóor ko 3 buts bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy tableau championnat bi jamono yi nii la tëddee. jàmbaar mooy wéy di des ci li nga xamante ne mooy bopp classement bi ak 7 points Stade de moo nekk ci deuxième place bi ak 5 points AS Pikine nekk ci troisième place bi ak 4 points bu ñu xoole nag ci suufu table bi ki nga xamante ne moo di Casa Sport Seneps ak US Gorée ñoo nekk ci li nga xamante ne mooy suufu tableau bu championnat bi.